xam naa ni Ousseynou ak kan moo ci njëkk a wax ma nuyu leen rek. waaw euh, euh, wala wala wala. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu. maaleykum salaam di ziare ñëpp ah. Mm-hmm. di la bëggee rawatina waa si siwal ko. di leen bëggee bu wér a wér a mm-hmm. di ziar àdduna. Mm-hmm. àdduna moom doo ko tuddee mooy bàyyi woo kenn. ñu ngi nuyu ñëpp di am kontaan ak mbégte si dalal bi tamit. dëgg la ayca euh, li ma lay njëkk a laaj mooy que tey bi nga yëgee ni Sidi Diop feesal na fële ci Zénith naka la la def ak lan nga yëg. waaw yëguma lu dul lu xolu sénégalais war a yëg ndax ñun ñëpp ay sénégalais nañ te loolu muy yëkkati foofu sunu drapeau la tey amaana yàlla si moom la ko dogal mu yëkkati ko tey munoon na ko dogal mu yëkkati ko si jumeau Afia ñu téye ko mhm. te incha allah rabbi yaakaar naa loolu dina am. Hmm? waaw ndax njort nañ ko ñu ñu yëkkati ko waaw incha allah. ngeen yëkkati ko. <laughs> waaw. Ama Mbaye sa maa ngi lay nuyu di la siyaar. Oh, waaw mais mon maa ngi lay bëggee. bu wér a wér wér surtout Siweul TV ak 221 kenn du ñoom. Mhm. voilà moom mooy site leer bi quoi maa ngi leen di bëgg wéri wér di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne dal leen ak jàmm. <laughs> li ma wax kii rek laa lay wax. Ah, naka la la def bi nga gisee ki nga xam ne moo di Sidy Diop feesal Zénith te dara xewagul ndax spectacle yi jaxagul. waaw xam nga tey drapo Sénégal moom la yëkkati foofu. Mhm. jëlul drapeau feneen ak feneen war a Gàmbi war a feneen. dëgg la drapeau Sénégal la jël yóbbu ko ba foofu. Mhm. te Sénégalais yi wan nañ ne ko ni mhm. doomu Sénégal doomu Sénégal kese lay sentir. du sentir leneen lu dul doomu Sénégal. moo tax tam foofu mel noonu. waaw wax dëgg yàlla ba mu gisee vidéo yi. suñu xol dafa sedd. billaay parce que sànq nañ yeewar mu ne si moom non man ko taal gaaw sa téléphone ñu xool. comprendre nga ñu gis foofu fee dal foofu fees dellu kon sant yàlla la bu wér a wér mhm. te di ko ñaanal nag jàmm. di ko ñaanal foofu jikko. Mhm. comprendre nga. Mhm. pareeguñu nag ba léegi ñu ngi koy topp di ko seetaan ñu xool fan lay mujj. fan lay mais euh, bii yoon dafa dafa mel ni faramaare ni ñoo gën a bëgg bis bi kii di Sidy Diop ndax yéen ñi nga xam ne sax demu ngeen tey yéen a ngi toog fii ànd ak moom ngir di ko gunge ngir mu matale ko à 100 pour cent lan la ba faramaare ni tey di gën a dooleel ki nga xam ne moo di hmm. Sidy. non si tey xam nga tey kaana bu mag bi moo ñu jiite. Hmm? muy waal balaa Seck. dëgg la moo taxaw kan le ko. Hmm. sama dama lay soutenir. Mhm. kàddu yooyu noonu ñu dégg ñun tamit kaana yu ndaw yi si nañ jógee ne kii par force dañ koy jàppale. léegi yéenay kaana yu ndaw yi. buñ ko jàppalee gis na résultat. ndeysaan voilà ma ñëw tuuti ci Wally sekk Seck. Euh, démb moom message bi mu njëkk a envoyé Sidi maanaam message boo xam ne nii euh, message bu fort la dana ko je suis fier de toi gëmal ne tey da nga koy feesal xam nga ñëpp am euh, contentement ci message bi nga xam ne gunge na ko. laataay euh, li nga xam ne muy yéeg ci ci ci ci fitna bi. waaw xam nga bëgg yéeg moo koy fay. Hmm. ndax kenn ku la bëgg jar na daw ba dee ngir fukk yi la bañ. Sidi Diop ku bëgg waali la. ku gëm waali sekk la. Hmm. loolu la ko waali delloo. waali ak Sidi du wéet. parce hmm. que Cheikhul Khadim waali xam na ni Sidi mii. turusewul daa bëgg waali. waali tamit delloo ko bëgg bi. moo tax c'est normal message boobu jàll. te lu mu ko ñaanal ak li mu ko yéene. Mhm. tey yàlla wane na ko te leeral na ko. Mhm. moo tax tey doo xoolee salle bi macha allah. Mhm. laf cat. sénégalais yi jàppale nañ ko soutenir nañ ko taxawu nañ ko tey Sénégal ku bëggul rek. yaakaar naa ni doo doomu sénégalais. mais tey ndam bi ñu am. ñun ñëpp war nañ ko génn féete ko sante ndax am na ndam yu fi jàll. yu mel nii tey sii di def. kon tey ndam bi du ñëwee nekk bu bees. war nañu génn sante mhm. war nañu génn bëggé kaf foré mhm. xamni Sénégal mhm. ño am ndam tay c'est la famille. mais est-ce que jàpp nga ni carré bu mag bi dina def surprise donte sax amna bis bu mu wara a tay ji di tombé bi société bi tay est-ce que jàpp nga ni dina defal ki nga xam mo moo di surprise fële ca benn. kooku yëfu jinne lay def. Hmm? koku foko ko xaar rek gis ko fenen hmm. man koku ay mbiram dama ci xawa tay ndax wali lu ko neex rek lay def. waaw mom personne mom Mm-hmm. lu ko neex rek lay def mm-hmm. kenn du ko wax lu muy def mm-hmm. lu mu sentir rek lay def ndax jinne la jinne waaw mais jimo yi dama seetlu ne Wally à tout buy génn yéen a fiy des lan moo tax ba instant yi jotagul génn di ànd ak Wally Seck ah, ah, lan moo tax Wally di leen yóbbu mais nee nga jotagul déet waxuma jotagul sa biir wax nga wax man doomu géwél la dama gis ne chaque fois Wally da leen fiy bàyyi ngeen toog mais dafa jotagul xam nga lu jot rek day daal yomb ah. tey bis bu jotee si kàttanu yàlla ak mbaaxam mm. yàlla lu muy maye tànk mi ngi koy maye te jeexul mm. bakkan bi rotul mm. barki cheikhul xadim tànkam ak sunu tànk ba bitim réew la si kàttanu yàlla ak mbaaxam jàpp ngeen ni un bon di nga génn ànd ak Wally Ballago Seck wala ngeen ànd ak groupe bi mais tamit yow xam nga tey Wally panthère noire la moom Wally voilà buy màpp fii lay mat te bu yëngal bopp bi ngay dee waay lu leer laa la wax hmm? incha allah neexee yàlla nan xaar Mm-hmm. lu jot rek yomb. Mm. waaw mais amu ngeen benn kii maanaam mu xaw leen a métti muy yóbbu gars yi. ngeen des ci non non non non non ne xaw leen. xam nga tey ku jël titre foncier jox la ko biir Ouest Foire deseetu la dara. ndeysaan. comprends nga mm. titre foncier la bind jox la biir Ouest Foire léegi zimon yi. ak ñoo neex sama gars ay kilifa nañ. dañuy fay impôt ni ah bien sûr chaque weer dañuy def fay. impôt ni ñëpp. di fay ay doomu Sénégal di fay si biir place ngaa laa moom lépp moom la. ngay de non non c'est-à-dire dañoo gis gan <laughs> lu leer laa la c'est-à-dire kenn lu leer laa la wax comprendre kon tey yow ku la defal loolu noonu. Mm-hmm. te ñun ak moom tout le temps ñun dañ koy wax nekkul ay cadre service nekkul ay cadre dara maam Cheikh Ibrahima Fall moo doon suñu diggante ñun ak moom. kon tey ñun lépp lu ñuy. dund ak moom dañuy jël maam Cheikh Rafal teg ko suñu kanam ñu ak moom. Mhm. buñ koy xool sax loolu lañ koy xoolee. kon nag nekkul ay cadre da leen a yóbbu war a li mhm. lu jot yomb man. Mhm. ñu sax laa personne billaay dañuy ñaan bis bu ñuy dem yàlla na ko yàlla dogal bu mu jugee si loxo hmm? na jóge suñuy loxo. ngeen yóbbu seen bopp. suñu gëm-gëm la mën naa nekk. mais mais mais la moo la moo tax fan yii yëpp Wally dañuy gis nii biir STM mu ci dugal jumeau aviaire. ba bañ na ko fi mu toll nii kaana yu ndaw yi la leen tuddee kon mooy kaana bu mag bi ñëpp xam nañ ko mooy waali balaa ko sekk. waa loolu cofeel la. xam nga cofeel. kenn du ko saako. yàlla moo koy sàkku namm ko si nit ak nit. doonu lu ñuy force doonu lu ñuy ñoddi doonu looy buux nit ki. Mhm. da ngay bàyyi lépp naturel. Mhm. waali suñ diggante ñun ak moom lépp defa naturel. Mhm. moo ñu gis bëgguñu ñu gis ko bëgg ko. ñu soppante lu ji moo wax léegi Cheikh Ibrahima dox suñu diggante. muy Baye Fall. teg si di kaana bu mag a mag a mag mm-hmm. ñëw jël si moo affiyee ne yéen kaana yu ndaw yi léegi sànq ci suba ay huit heures trente ma ngi ko estati du ma tàyyi di la wan estati bi léegi ndax Sénégal preuve nañ bëgg léegi dama lay wan estati bi nu ma gën a gaawee xaaral léegi ma dëpp ko caméraman yi ndax ñoom ñooy feeñal te lu ñu feeñal lii estatu waykat bi la la santé du peuple monsieur Bigué Mar ñu dem ñu xool kaana yu ndaw yi fu ñu toll kaana yu ndaw yaa ngi nii fii nañ jëm lii moo ko bind kon lii bëgg la ak cofeel ak xam fu ñu teg te xam ñooy ñan gis nga doon xale terewul nga am jom am looy bañ ñun dafa am lu ñuy bañ ñun les jumeaux Afia nekkul da nga leen di téere këtam këtam leen fàqat leen ñu rëpp kat appi noonon di nga jàkkaaroo ak ñun xam ñooy ñan te moom dafa xam kan mooy jumeaux Afia bëgg ñu fonk ñu jabaram bëgg ñu fonk ñu yàlla boole ñu ñuy liggéey liggéey bu rafet ñun moom lañu am amuñu keneen man nee naa képp ku yor way képp ku yor micro di way barki Serigne Saliou Mbacke doyal naa si yow. Hmm? mais man Wally rek laa bëgg. waaw loolu moom gëm-gëm la ak gëm ki nga gëm. Hmm. looloo ñu daal si moom. Hmm. waaw Wally kese nga bëgg. moom képp. <laughs> samay àll <laughs> la sax mooy jàllale góor yàlla fa yàlla dëgg la comprendre nga gëm-gëm la waxee gëm-gëm moom moo nekk suñu ñun loolu la ñu dañ koy yàgg ñoddi muy gëm-gëm bi nga xamante ni bëgguñu kenn puusal ñu hmm. suñu yoon ñun suñu yoon ñoo ko bëgg xàll suñu bopp te yoon boobu noonu ba léegi ñu ngi koy xàll hmm. barke Serigne Touba parce que ñun je suis Baye Fall d'accord Baye Fall élégance hmm. ñun dara yóbbuwuñu doo ñu jaay taali bi rek ñu jaay la taali doo ñu jaay nag leneen Eh, bëggoon leen mu génne loxo mhm. c'est-à-dire moom créé na ay. bis bu ko yàlla tuddee ne Wally Ballago Seck moo leen day am. leen hmm? boo leen ñoogu mbay. waaw kon yàlla ñu boolem ñoogu. mais mais xam mais mais kon ñoogu mbay. si kanam. mais mais déglu ma nii ngeen ñoogu dama koy message. Ah. waaw <laughs> nii nii ngeen xam ne sorti yu bëri demu ngeen. kii na leen xaw na leen gêné tuuti quoi. non non métti na leen nag. non frère. mais xam aw ama mu ngi dem na mais mais pourquoi pas awa ama war a mun a dem. Mm-hmm. mais doomu sénégalais la. Mm-hmm. te awa ama c'est normal mu dem ndax ku ne xam na fu mu ku muy xeexal. Mm-hmm. mais tey tey tey. mais kan awa ama. mais aw ama moom ay farakee cax ay siiri jóob ak moom gëmul yooyu de xam nga loolu la gëm. ku gëm boppam la gëm mu ànd ak yow. Hmm? moom loolu la gëm de man dernier soir yi may gis nii da nga koy gis fan. mais c'est normal. ndax moom ñëpp ay papam nañ ñëpp ay waayam nañ. Hmm. waali papaam la. du ñëwee day toog fu gën a nooy. non non nekkul waxu pikin. non ba bàyyi leen leen bu ñuy wax dëgg ngeen naan waxu pikin ñun ñun dëgg ni ñuy wax. awa ama du ñëwee si waali war na ñëw si waali du demee ci siidi war na ñëw ci siidi. comprendre nga. comme comme jumeau avia suñ démé ci waa Sidi Diop tamit dem dem na ci man awa ama laa la wax. mais man jumeau avia. personne man jumeau avia. man barki Seydina Mouhamed man dama nekk nit koo xam ne du la rek lii la. man du ma nee waali la. mais du ma dem ci Sidi mun naa sentir loolu dem muy Momo Dieng muy Bastion muy Pekaay Mbaye muy keneen ak keneen. du ko sentir damay jug dem mais man ma jug dëgg. jug fëgg ñañi waale la jëm loolu moom àdduna xam nañ ko ñañi moom du yëngatoo waale ko yëngal. waaw waaw. mais naka ngeen di waajee bi. seen seen doom nday di di war a Leewtoo moom ndam rek ñun ku ne xam ne lépp Pikine la hmm? waaw <laughs> ndam rek. ndam nañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm te may ko ndam ju mag a mag a mag hmm. ñun. waaw amaa nañ am Pikine képp kuy takk ngemb. biir Pikine nga dëkk fa ñaanal nga Ama suba mu am ndam. Mhm. waaw dem ma jël Medsop Medsop tamit ne Wally Seck yooyu bëdd na ko si si si. Ama Baldé jox ko 2 millions na ko acca. yow Ama démb loolu yàgg na. loolu xanaa xam nga Med bëggul woon Wally bëggul woon sax Med wax loolu. Hmm? mais xam nga Med rek nu mu mel si Wally. Ah. barki Serigne Saliou Mbacké. mais loolu du dara looloo gën a ndaw lu Wally di def. mais mais lu